mbokku Afrique mbokku Sénégal mbokki jullit yi mbokki réew mi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul Serigne Abdul Fattah mu jële ndigal li ci jëwriñam a Cheikh Mouhamadul bashir mu jële ko ci Serigne abu Baraka mii di xalifatu cheikh El Hadj Mouhamadul Fadal kàddu yi nag sëriñ Mouhamadul Mamoun tudd na ko waaye damay tënk sama kàddu rekk ci ñaari tomb bu jëkk ba ñu seedeel àdduna bépp ne kër Sëriñ Fallu ci ndigal rekk li ma ne kërug ndigal la nag dañu ko teg ci ñetti wéeruwaay yu dëgër lii waxe suñu borom la mooy lépp moo ne woon jullit yi lu leen yonent bi digal nangeen ko def te li ko tàmbalee tey na ngeen fexe ba bu mu leen séen ci lu mu leen di tere wa ma fa xuduhu waaye yonent boobu sallallahu alayhi wa it ngir gën ñoo jegeleel waxi suñu boroom ji moo ne déet ku ñuy déglu ndigalam kat du yam ci man daal waaye fu ngeen àndatee di ñett sax jiital leen kenn déglu ndigalam sëñ bu mag bi bind ci ay mbindam ne bu kenn damm xat te amu ca ndigal laa tafaalu cheyan bi geyri idni fal idnu chartun fi qabuli shani kon foofu lañu teg woote bi ne su sëriñ bi ne woon nañu ko fommit kenn dutu wax lu ca jëm gisu su ko naneete ndox ñaareelu tomb bi mooy sëriñ bi dafa ma jox ndigal ñu wone tuuti ci dunduk sëñ fallu gi bu ñu noppee kenn ku nekk jàngat ci fa mu nekk ba xam boroom dund gu mel noonu jar na wuy ji bisam walla jaru ko lu yaatu la waaye dañ ciy tànn benn rekk boo xam ne dana neex a jàpp te dana mën dana yomb ñu tegloo ca nit bët jaarloo ko ca ci ay tànkam bokk yi ñun ñëpp xam nañu ne Sénégal eh, bu ñu xoolee lim amagun bi mu beroo ak tey bi mu sampee njëlalu boppam ak léegi buñ ko seetee ci dundug nit sax bariwut waxaale wuñ dundug réew waaye diggante bi jiitu Sénégal di ber njëlam tuuti ci misaal ñi nga xam ne <clears throat> bi année cinquante yi tàmbali fekku leen fi ñooñam kenn mësu ca dugg këram bii ci ab robine xel ndox waaye bi Sénégal deme ba ber njëlamit Euh, ñi fekki wut bi senegal di bel njëram mosu ñoo ñëw Touba jaar ci aw yoon ñëwin wu metti lañ daan ñëw rawatina nag dugg ci sëb néeg laal dara rekk làmp yi na ray tàkk li may lim nii maa ngi ñëw ci li ma ci jublu waaye ku ne xam na ne it ku fi senegal li ber njëlam fekkul mosoo jëm fenn ci Touba ne naa jaar ci mbedd sàngam ba àgg jàdd waxaale wuñ julli ajjuma ci jumaay Touba ji wala ngay yónnee marché Ocass wala poste de santé bi dispensaire la tuddoon bi nekk 28 wala ngay jot bataaxal boo xam ne Touba lañ la koy joxe. wala telegram ñu naan ko wax telegram bu njëkk ku ko mosaan dégg da defe defee ne àdduna tukki na yooyu nag ma lim ak yi ma limut tam ne gàññi ci jamono suñu Fallu la fi ñëw li ma ci bëgg a jàngale mooy yooyu yëpp am na Tuubaa ba Tuubaa xëpp la boo ko mën a jóge dangay jaar ci aw yoon ba àgg sa mbubb du fagg nga ñëw dangay def nii sa kër rek robinet bi di xel ngay jaar ci mbedd sàngam jëm kër diw euh, di taali làmp waaye bokk yi loolu li ma ci bëgg a jàngale rek te sëriñ bi sant na ko mooy moom la lislaam di wax al ithaar moom la aaya ba di wax ne di wax ci saxaaba yi ak seeni jikko ba naan wa yuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa yooyu ma lim yépp jamono bi mu koy indi Touba feneen fu mu joxoñoon ne dañ ko fa yóbbu ci dëkk yi mu sanc te daa fa liggéey Sëñ Touba ñu yóbbu ko fa waaye ndindi gi gën a jege Touba 2010 la fa ab tali dugg kon yor li nga yor ñépp soxla ko yàlla teg ko ci sa loxo nga séddale ko ba mu jeex te wutoo ci sab cër loolu sëriñ bi nee na ku fi jógee na ko jàng yóbbaale ko ba déwén ba lu mbokkati aku nit bu leen ko munta bàyyee it kenn ku ci nekk mu cof ca jox la waaye nag ku def ni sëñ bii def it moo gën li sëñ Fallu def moo gën séddee séddale ko toog eh, fëgg say loxo kon benn tomb boobu rek laa ciy jël doy naa jàpp bañ fekkewaat ko ci jàpp waaye it war a see mën a jàng ci dundam muy léebu wi nga xam ne arab def ko léebu woon bu yàgg kun yenn wala takun idaamiyan isaam benn doxandéem bu ñëwoon ci dëkk la amut fum mu fanaan te mu gën a jafe yendu moom yomb na nit mën nay wër ci mbedd yi ba jant bi so euh, léeg-léeg sax am ku ko kàkkalu ne ko kay barkeelu waaye fanaan a gën a jafe waaye moom sax fu mu yendu woon daa jafe ndax ku ko xool ni kii ku doon daana am ci Touba bu yàggutoo bi jumaa ji wax ak waa Touba gépp ci benn yoon daanañ def bu saxaar akse ñu xool waajoo xam ne daal day wër mbedd yi dugg ci génn kër ñu ne ci jumaa ji tey kat ku yebu teel a fatu ndax dëkk bi am naw gan ensemble nag nekk di wëndeelu ci dëkk bi ci gàttal ba xëy na léng ba saa bu buur di wax day nit ba ay saam mu soog a wax wala mu soog a jëf moo tax ñu daan léeb na nit ku nekk war naa fexe ba nekk ensemble sa jëmmi bopp self made te bañ a nekk may doomi diw rek sëñ Fallu dey borom Tuubaa moo ko feeñal ci jamono dalal ko jàng fii ci Daaru Rahmaan moo ko sëriñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Omar Mbakke Galongal Euh, sëñ Masamba xaw leen a ñam tuuti mu boole leen ak sëriñ Abdourahman Lo gannaaw bi sëriñ fa dem ci loxo yi maam Cerno ak loxo yi maam Mor Jaara waaye jaar-jaar yooyu mu jaar ci ndigalul sëriñ bi yàqu ko yàqu ca dara ndax ñaar fukki at ak dara yi mu fa nekk ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ndigal lii ma tàmbale woon rek ca la tënku woon lu Cheikh Modou sottal loxol suñ falloo nga ca ci ay taalibeem ak astuutam lii dañ ko ko daan sas lii daf ko daan yóbbu rek xam ne mooy Sëñ Tuubaa gannaaw bi mu fi nekkee ñaar fukk ak ñett nag ci ay at eh, daa daa daa jëloon yoon yoonu sëñ bu mag bi def na bind na wax na bàyyi fi waaye mbindam moomu ak jëfam jooju dafa war a jolli ñenn ñu nekk buñ taseeg seen jamono ñu gis ca seen bopp moo taxoon saa boo ko mësaan wax rek mu ne borom barak bi rek borom barak bi dem na ba ne sax moom ki ko doon jottali naa ko ab taalibe rek la bëgg doon mu ne bëgguma doon ab taalibe sax xanaa ne dëxus ci biiram rek loolu nag daa mel ne yàlla defal na ko ko ndax taarixu murit histoire bi ku cay wax te la muy wax di dëgg li ko tàmbalee Touba moom daanaka Touba suñu fa la tofam koy wax te te wax dëgg moom faw ko ci limaale bu ko limaale ci njëlbeen gi dana ko ci boole ci ginnaaw bi ndax bu ñu ko weddee nañ dindi te liy jëm si Touba yépp dindi mbedd yi dindi courant bi dindi ndox mi dindi jumaa ji nettali ma ko kenn ba xam danañ amati Tuuba wala déet kon boog suñ bay ko jur mooy way juram waaye nag daal takkaat laxasaay ginnaawam loolu it a ngi fi ci ne kenn ku ci nekk luñ defar ba teg ko ci sa loxo euh, wërta mel na meloon su melee na meloon ba ka la ko dénkoon ñëw sax yàq nga ko waaye dafa war a weesu moo tax léeg-léeg ñu naan diw bu suñ mag bi ñëwaatoon du sappi jataayam am xam xamkatu wolof bu ne ax akay sëñ bi mag bi ku mu fekk nga toog da nga soppi sa jotaay wërta fekk kenn taxaw kenn kenn toog daa war a fekk ñëpp taxaw moo tax ña doon wax tañ naan dañoo ànd ak seeni xel kenn ka dane moroom ja xool foto suñ mag ba yàgg mu ne xanaa kii day taxaw rek moroom ja ko kii bu toogee musiba am waaw loola njàngale mu rëy la kon book fi may jeexale mooy jot li cant sëriñ bi ci ministre Matar Ba ak ki mu àndal professeur ministre professeur Mame Thierno Dieng ak délégation bi nga xam ne lim nañ leen ci gouverneur ci préfet sous préfet ak ba ci maire bi ba ci chef de village bu Touba ak délégué de quartier yépp délégué de quartier yi nag leen ci boole mooy màggalu ren ci góorgóorlu gisuñu fa la doon góorgóorlu ba gannaawam mel nii mu mel euh, sëñ bi doon dalal daa daaira yi nga xam ne ay soppe suñu fallu lañ tudd te mën nañu bañ nga xam kenn ci njabootu suñu lu tey ñëw fii ci kër suñu ëboo di ko jëbal seen liggéey kooku nee na ma léegi ëpp na juróomi téeméeri daaira yoo xam ne daanaka xamu xamante wu ñoom sëriñ bi sax waaye mbooram sëñ bi lañuy topp kon sëriñ bi neena na mi ngi leen di beral ak cant di leen xamal na kër gaa ngi nii nekkal fi ñëpp nef sëñ Fallu nekkale woon ñëpp sëñ Fallu yi doonoon misaal ci wuuf ñépp laata muy xam nit ku weex ak ku ñuul walla diina ju mbokk ndax mas na ne mooy senegaal doon nañ ko waxtaan daaw ca CRD ba Sénégal ñett yi ñuy xool walla yaar euh, benn bu ci nekk daa am spécialité ndax Sénégal dangay gis ci tempon yi ñu def ci ak guy guy ku ne xam na jariñam waaye dangay gis tam ñu def gaynde gaynde it ku ne xam na jikkoom ku gore la ku mën a muñ la gaynde lu xiif xiif du du lekkat am ñaax day xaay ba yàlla dikk rek mu jariñu ci jox ko keneen kooko kooko jariñoo ko kon ministre euh, Makhtar Ba ak ñi nga àndal ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante di la fay ab nuyoo ci kilifa réew mi euh, di la xamal ne ni ko suñu Abdou Lahad Ka waxe lu wér la yiñ ko waxoon daal te mënul te magal gi mënulu ko boppam yu se baree bare moom gis nañ ko xam naa ne lépp moom yàlla mi ko man sax defu ko defagu ko bopp waaye lu sa bari daal gisees na ko mooy yi nga xam ne mënul màggal gi mënulu ko boppam indi fi ñuy taxaw ci kaaraangeel nit ñi ku ci wéree di mu faj la bu ndox amul ñu wuti ko yooyu moom màggal gi mënulu ko boppam kon nag wuutu gi ngeen ko ci wuutu sëriñ bi nee mu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ci réew yi jullit yépp di fedd li kóllëre ak ñi nga xam ne yàlla dogaloon na ñu tàmbalee jaxasoog moom waaye ñi nga xam ne it bis bee leen fi indi tey nee na mi ngi fasante ak ñoom kóllëre te fas ko ne sàmm bu baax a baax a baax a baax euh, kàddu yooyu daal la sëriñ bi waxoon ne nañ ko jotali gannaaw bu mu ñaawloo it euh, ci réew yu sori ya nañ fa defoon jullit yi fan yee mi ngi koy métti lu lool